gii Marius Sagna moom nag ni ki fukki fan ak ñeent ci weeru octobre bi lay daal di jénn ci ëwë gi mu nekk xam fan la féeteeg yoon ndaxte kat kii di procureur moom lu toll ci ñaari ati kaso yoo xamante ni juróom benn weer ya lay tëdd la ko daal di daan ni ki noonu ab alamaan goo xamante ni nag xayma nañ ko ci rek lii di deux cent mille francs la ñu koy toppee nag moo rek daal di jëm ci nag joxe xibaar yu teguwul ci yoon waaye itam daal di joxar bi gendarmerie dañ ci ànd ak nanku bak ko activiste bi di Guy Marius Sagna jàkkaarloo nag àttekat bi alxames bi gannaaw bi ñu koy toppee wasaare xibaar yu warul ak joxar bi institution bi di gendarmerie avocat yi koy layool dàq yi le xeetu délit wax nañ leen ni leen gendarmerie du institution boo jëlee constitution article six six institution la la gendarmerie bokk si exécutif fa la gendarmerie bokk fa tiré ay conséquences na plainte agressé nañ ko mu porté plainte dañuy mu porté plainte ñooñu depuis le 28 mai ba léegi kenn mënu leen déglu plainte bu ko nit defee citoyen bu ko def dañ lay woo ne la sa plainte baaxul duñu la poursuivre dañu woo ñu la dañuy poursuivre ñu déglu la wala ñu woo la ñu la classé lañ ko sans suite parce que procureur nee na bëggul ñu dem fenn yow bu la neexee après nga dem tribunal mais loolu yëpp amu si. ci noonu procureur moom li muy sàkku mooy ñaari atu kaso yoo xam ne juróom-benn weer yi Guy mari Sagna da koy tëdd boole kook alamaan ko deux cent mille avocat yi layal Guy Marius Sagna ginnaaw bi ñu sàkkoo liberté provisoire dañ cee mujjee deltu ginnaaw. boo defee demande liberté provisoire procureur bu defee appel yoon dafa wax ne da ngay toog foofu di xaar appel procureur ñu jugé ko. e comme si matière bu mel nii. procureur euh, bu ko neexee la yóbbu dossier donc xam nañu bu procureur defee appel gii mën na fi defaat yeneen trois mois yi nga xam ni kenn du ko àtte. dogalu àttekat bi ginnaaw sàkkuteefu procureur des na ko xam alxamis bii di ñëw. Abdoulaye Mbow gis nga ko kon moom gi Mari Sagna ni ki alxamis gii di ñëw euh, la ñu koy waat ginnaaw bi ñu ko àtte tey. waaw euh, defe naa ni li ëpp solo moo di tëj koon lan lay yokkale état. waaye itam bakku mujj bi la lay wàññi état la si ëpp solo moo di xam nañu ne Guy Marius Sagna activiste la bu présent sur le terrain qui est très actif sur le terrain li ko jàpp moom bari na lool waaye def naa ni euh, li nga xam ne wax nañ ko mu ne ay ay wax loo xam ne safaanu ak dëgg te mu teg ko si kaw gendarmerie defe naa ni de li ñu ko jàpp rek doy na euh, alamaan sax bu dee jot na ñu war war nañ ko alamaan ñu alamaan ko waaye defe naa ni tëj ko kaso jamono de euh, du du andi lenn loo xam ne rek vraiment solution la a apaiser dañoo war a andi li nga xam ne moo di jàmm ak ak li nga xam ne moo di waxtaan dialogue permanent par rapport ak état bi ak ñi nga xam ne ñooy opposé wu ak état bi waaye tëj ko itam defe naa ni du yokk dara état bi Abdoulaye Mbow ki nga xam ne nag moo di ministre bi ñu denk wàllu affaires étrangères di Aïssata Tall Sall daal dina àddu jëmale ci li nga xamante ni moo ñeel passeport diplomatique yooyu ak mbuxum ma ca nekk ak ñaari député yan cay tudd moom nag nee neen mook askan wi yëpp ñoo ko daal di yëgandoo te itam lu jëm ci wàllu séparation des pouvoirs dafay tax nag ñoom ñu daal di rek toog xaar a yoon def liggéeyam ñu teewlu ko ci yàlla man damay dégg ñu naan trafic passeport mais man gisuma fenn fu ñu ne bii passeport dañ ko trafiqué ni ngeen ko déggee man noonu laa ko déggee. ma wax ñu nag ñetti mbir dafa am loo xam ni dafa soxal assemblée nationale soxal député dañoo ne yow ministre bi gouvernement bi fonctionnaire bi na nga ci maandu parce que yoon mayu la nga jéggi frontière boobu. suñu constitution daa rëdd encore benn frontière diggante justice. ak exécutif bi moom bi ma ñetteel maandu mooy enquête dafa am secret képp koo xam ne danga weer yi muur yi secret enquête yoon am na si yow wàll te bés bu nekk yéen a ñuy jàngal état de droit lii mooy état de droit donc lii am ba ministère affaires étrangères maandu ci mbir mi kooku sénégalais dañ coo war a sax am mbégte ñu des ak moom euh, jëwriñ ngi ñu denk wàllu affaires étrangères yooyee kàddu mu ngi ko daal di yëkkatee nag ci am euh, ab euh, forum international boo xam ne ñu ngi ko jagleeloon ci lu jëm ci wàllu jàmm ak kaaraange ci Afrique mu nekk mbir moo xam ne day am juróom-benni fan jàpp juróom-ñaari fan ci weeru décembre bi di ñëw mu nekkoon kon wàccaay li tey dañ ci ànd ak Fatou Lay Mbaye Fatou Laye Mbaye Diop boo xamante ne jagleel nañ ko lu jëm ci wàllu paix ak sécurité fii ci Afrique mu nar am ni juróom benn fan jàpp juróom ñaari fan ci weeru décembre bi di ñëw mu bekkee ne élément bi yéen bu lekk alaaji gis nga ko jëriñ ngi ñu denk wàllu affaire étrangère nee na moom mook askan wi ñoo yëgandoo coowal passeport diplomatique yooyu lu xel mën a nangu la parce dañuy euh, xibaar yi passeport diplomatique yi ñu ngi koy confectionné bitim réew lañu ñu koy defaree. fii la ñuy dajalee seen ay kayit dugal ko ci DHL mu dem bu ñu demee ñu defar foofu passeport bi dugalaat ko ci enveloppe comme courrier mu daal di ñëwaat kon bu ne yëgu ko xel mën na koo nangu ah, wax dëgg yàlla foog ñu logique nag. Mhm. loolu la xel nangu euh, kan moo ko signé mais ki mën a confectionné pièce euh, passeport diplomatique ba mënul koo xàmmee ak bu baax bi pour mu trafiquer signature aussi loolu itam posé wul problème. donc man bu ci bu ci dédduwaane woo nii moom moom ñëpp ko yëgandoo man dinaa ko nangul de sérieusement dinaa ko ko nangul parce que amoo benn preuve bu mën a taxaw ni doo ko nangul mais nag côté bi ma koy ñaaxe mooy mhm. euh, ci service am war nañu am benn vigilance même au niveau des aéroports ba nga xamante ni bii bu nit ñëwatee présenter passeport diplomatique am nañu ay ay hologramme ñu ci mën a sécuriser passeport diplomatique bu baax ba nga xam ni kiy falsifier du mën a mukk falsifier passeport diplomatique bu baax baneen boo xam dañ ko dañ ko dañ ko toppandoo foo bi du mën a jël place be donc mais vraiment man ay propos man lu ma ko nangul la. loo la paasan. waaw je je suis <coughs> logique gu Mansour ci bu ne effectivement il elle parle d'information euh, Aïssata Tall Sall la ministre euh, mooy ñun ñoo ko yëgandoo effectivement loolu li Mansour wax dama si d'accord mais problème bi pour ma newul foofu <coughs> encore que on ne parle pas de de passeport falsifié faux diplomatique et cetera passeport bi existé na dañ ko use maanaam utilisation de passeport de faux passeport de passeport diplomatique la nanu koy usee ak ka ko use ak léegi nag la wër loolu foofu la coow li ne bi si des moo la euh, position bi nga xam ne adopté na ko en tant que ministre par rapport à l'exécutif ak le parlementaire loolu mu wax foofu tamit dëgg la malheureusement l'État use ainsi quand il faut le faire et que ça l'arrange quand il faut pas le faire et que ça ne pas donc foofu la problème bi ne mooy que ci cas de figure bi ni Aïssata taal Sall wax dëgg la lépp yoon la malheureusement dañuy def constat ci yeneen domaine ci yeneen nit que bu leen arrangé wul dañuy am beneen attitude boo xam ne dañuy jël exécutif mu tegu ci kaw parlementaire législatif bi. ñu wax ci lu jëm ci wàllu fonction publique local bi ak itam lu jëm nag ci fukk ak ñeenti point yi nga xamante ni daal dinañ ko woon bëral ñaar rek moo ci daal di des mooy li nga xamante ne moo di yóbbu agent wu IPRES ak ci fonds nationalu retraite ak itam taxawaluk lii di centre national bu formation wu agent wu collectivité territoriale yi lu ni mel nag ñu ngi ko daal di rek euh, ba ci niki tey ji ci suba ci session ordinaire bi nga xamante ni ñu ngi ko doon rek jagleel wàllu wi dañ ci ànd ak Younousa Baldé ndaje mi tax na ba càmbar fukk ak ñeenti point yu nekk ci processus ñeel mise en œuvre soxol fonction publique locale. gis nañ ni am na ay avancées significatives yu am solo ba tax na maa ngi gërëm bu baax acteurs yépp bu weesoo ñetti décret yoo xam ne président Macky Sall signé na ko ba pare ministre bi tamit xaatim na benn arrêté loolu yëpp ngir jëmmal fonction publique locale. parce que dañu ne d'ici le 30 novembre bépp agent. ba bëgg a ñëw intégré fonction publique te nga nekk ci collectivité locale am ay dijaasa war nga ñëw rapproché wu direction des collectivités locales nga déposé say kayit loolu révolution la ñuy pour pour ñun. wante des na ñaari poñ yu am solo. bi ci gën a jàmp aujourd'hui mooy le basculement de nos agents qui étaient à l'IPRES nan la ñu mën a yóbbu fonds national de retraite. bi ci dasaat mooy xam nga centre national de formation euh, des agents des collectivités territoriales. un outil très important. donc renforcement de capacité bi nga xam moom la ñuy war a am. agent collectivité moom la agent état di waram